asalaamaaleykum wa rahmatulah mbok internet sen football TV nuy naa leen bu baax jeex leen di am mbekté saa su ne defal vidéo mbok yi tay question bi la kan mo wara nek remplaçant bu Sadio Mané si ëllëg bu équipe nationale du Sénégal wala sax ci Coupe d'Afrique bi nek suñu kanam ni si commentaire wax leen sen jour bi nek sen xel bo leen mëna argumenter aussi dina baax lool mbok yi wax leen ne rek lepp lu xamante maillot la lepp lu xamante casquette la lepp lu xamante ci si sport la de manière générale man ngeen ko am sur sen football TV au 77 352 31 01 muy loisir yi Sénégal di sol sen blouson aussi tamit disponible na maillot sélection la chaîne maillot clip, club si prix abordable franchement ak ballon original yu sur football TV 77 352 31 01 mbokki comme ni ngeen ko kan de Sadio Mané wala kan match bi 10 minutes 15 minutes nga bëgg remplaçant kan euh, poste bu Sadio Mané si dernier euh, match du Sénégal nañ dañu profil bu 10 minutes nga boo defee 10 minutes yooyu benen jour bi mu andi feu et flamme premier jour bi xamantene ne dafa andi mu ngi tudd Cheikh sabali Cheikh sabali mu ngi nekk du côté de match daw saison bu excellent def li nu mel sax moko ko permettoon suñu match bi xam ne dañu ko won jouer fële ci Rwanda euh buñ dañ ko convoqué woon si match bobu mu nekk match officiel mu nekk lu mu mérité en club mu def ay euh, de belles prestations nekk ailier donc euh, moy premier jour bi xamantene ne dama koy andi xam nga donc euh, moom un jour de côté là ailier gauche ailier droite man na remplacer changement benen jour bu xamante ne dama koy andi ñoo bokk club pas Amadou Diallo mais pas le le seul problème c'est pour le futur pour moi parce que les moment où on petite catégorie franchement c'est assez intéressant que ça soit si U20 que ça soit même si Chanbi bi comme Lamine Camara nous nous nous impressionné moi aussi nous nous impressionnés mais jusqu'à présent à temps de temps de nous faire du côté de Metz mais dans l'avenir pourquoi pas laay wax parce que c'est un jour un vrai vrai ailier de ailier moderne là. on va continuer avant cette bataille le premier jour que ne dama koy c'est Grand Sir, Grand Sir c'est un très bon profil bu xamante ne euh, jamono bi à ngi Los Angeles à un moment donné mon Monaco euh, nous avons un de français pour français carrément maintenant nous avons comme du côté de France que Le Havre donc euh, moom aussi tamit gauche droite numéro 10 tantôt sax milieu de relire, avoir, euh, un bon profil pour équipe nationale du Sénégal parce que c'est le genre de profil yi xam tout moment donc pivot Samuel Grand, si un jour bu bu intéressant Nous dañuy avancé keneen ko nous dama c'est plutôt Hassan Diaw ñu bëri ñoo gis ne le parfait remplaçant de Sadio Mané à l'heure où l'on parle en deuxième période c'est c'est c'est Assane c'est un jour bu xamante ne mu ngi nekk Betis Séville gis ngeen espagnol jël nañ ko né au Sénégal bu mu ne bu la Sénégal et tout maintenant euh, doon nañ dox pour mu ñëw si U20 mais malheureusement suñu fédéraux yi ak suñu coach Malick Daf, convoqué wu ko euh, maintenant si à Aliou c'est le dossier l'intéresse je pense que boo waxee ak que le projet Sénégal la ñëw déjà bëggoon na ñëw petite catégorie donc c'est toujours possible mu ñëw c'est équipe A en tout cas c'est un jour bu xamante ne gis nañ prestation yi mu def ak Betis Séville vie. Titulaire, c'est pas évident. Si c'est première année, à l'âge de 18 ans, c'est quand même assez intéressant pour dire que euh, n'est que le profil maintenir. Bounka Amon, en remplaçant de Sadio Man, et même pour le futur de Nan, un grand oui. Ben, joueur Boukhamantene, Alum Badra Balde. Alum Badra Balde, mon unique Nice, mon aussi, c'est un joueur Boukhamantene, capable de jouer ailier gauche, ailier droite, bon dribbleur, en vitesse, rapidité Boukhamantene, assez intéressant. Les nouvelles, Lolowan, Lausanne Sport, avant Lausanne Sport, Lolowan, Hollande et tout. Donc, c'est un joueur maintenir. donc, tel Ham, c'est petit catégorie, fait Fayno, solo et tout maintenant nak mo ngi niis mom aussi tamit li ma wax si euh, yeneen jours yi xamantene ci Pa Amadou Diallo laay wax ci mom am ci mom yaakaar mais on attend quand même du côté de Nice Nice c'est vrai que moi leader bi c' vrai que concurrence bi fofu c'est c'est assez rude mais quand même c'est un jour bu xamante ne ci mom yaakaar pour un futur en équipe nationale du Sénégal té amna gëm-gëm bi na xamna ci lu lu béré béré beneen joueur boo xam ne koy wax Ndiaga yad Ndiaga yad mo nekk Quevilly Ndiaga yad, waa Mauritanie bu ñu tay ji jël ko ñoy ngi waxtaan pour convaincre que mu Ndiaga met nek un vrai ailier moderne un vrai ailier moderne il s'est percuté il s'est centré j'ai joué une combinaison ba euh, dans les petits espaces il est pour moi il est assez bon xam petit périmètre moi je sais un deux tous nous ñu xelli Il y a quelques matchs yu ma me match c'est c'est intéressant il ma a trois piston ça va maintenant ren jii du côté de Kevili mo ngi woné bopam bu baax ba li ñu mel motax wa Mauritanie bëgg ko convaincre mu bay fi Sénégal euh, ñëw foofu ca ca Mauritanie beneen jour bu xam dama koy wax mooy coéquipier di Pape Ousmane Sakho Pape Ousmane Sakho tim c'est un jour bu xamantene dama jakkalok Ali Cissé nek le profil idéal pour jamono bi pour euh, Sénégal ko xamantene ne dafa nduróo carrément ak Sadio Mané c'est c'est c'est Pape Ousmane Sakho même taille même gabarit presque même si Sadio Mané mo koy sut touti bon en 30 mètres di mëna taxaw 30 mètres di xaañ muy duggu donc Pape Ousmane Sakho li ñu doon xaar quand même mooy Europe enfin enfin signé Europe malheureusement début saison bi ak papier problème administratif ba tey joué gul woon dernier week-end bi enfin il a joué ñoom ñoo gagné donc pas autant ça c'est un profil bu xamante ne sénégalais yi bëgg nañ ko gën a découvrir malheureusement temps bu tuuti lañ ko jox et que début saison bi carrément joué wul en espérant que novembre décembre bi mu toj ko et pourquoi pas rêver de Coupe d'Afrique parce que jusqu'à preuve du contraire euh, liste bi mën na ci bokk ko xamante ne ba wax c'est Dembasek Dembasek sur notre profil gaucher euh, nekk Torino ñu teg ko contre Bolivie suivi en quelques minutes mon impressionné Sénégalais et surtout surtout que mon est un profil bu xamante on a amuñu ko nous du Sénégal donc euh, bu xam mën décroché bu xamante bon dribble et comme ni ma ko c'est un gaucher c'est un gaucher limite limite mu leen ay droitier donc Demba le fait que mu nekk gaucher rek euh, li spécial quoi l'homme moo tax mu nekk benn bu spécial mais en termes de statistiques quand même du côté de son club Serie A Italie actuellement Torino ñoo ngi xaar euh, ay prestations yu ëpp lu muy def benn jour bu xamante dama wax c'est plutôt Alioune Badara Mané dans le futur de l'équipe du Sénégal man ngeen ko xalaat tey leen joueur boobu noonu moo nekk Brésil mën a football loolu ma dem ma découvrir que Sénégal yu bëri ah franchement ci bi def moom interview à distance mu nekk fële ci Brésil capable de franchement dugal ay coups francs dribbleur man franchement de joueur yi mu leen am xamal yi ma xam yëpp ça ma top top trois la bokk quoi sama coup de cœur saison bini, saison 2023, 2023, vingt trois deux mille vingt sama coup de cœur c'est c'est c' est Mané boy il est fantastique suñu wadi dafa mën football lol lol lol gauche là, et que sénégalais biñ ko gissé ñu bëri na ma équipe A mais à voir jamono bi normalement dafa war a signé Liga B manam deuxième Espagne si loolu la nek mo ci yoon bobu discussion bi lépp antu liste des officialisation mo dess donc bientôt sénégalais di ngeen gëna découvrir Aliou Mbadé Mané on va continuer il y a d'autres jours yoo euh, ben, je ne dama jour bi xamante c'est plutôt Abdallah Sima hein. Sima meilleur attaquant sénégalais Abdallah Sima capable de jouer à gauche comme à droite même si c'est un attaquant hein, mais quand même pour remplacer Sadio Mané c'est un profil bu xamante à ne pas négliger quoi ku le a football la ku ñu am yaakaar donc di cette saison c'est le meilleur buteur sénégalais pour mën je joue à gauche je a jouer à droite donc nag attaque la jouer mais tey dit bon demoon sa remplaçant changement de na Qui nga qui remplacer Abdallah Simal, un grand oui donc Abdallah Simal aussi c'est un profil à ne pas négliger donc euh, on va continuer Sofiane Diop moi je bi appelé ma xamante dañ ma siy tooñ li wax Sofiane Diop et tout mais Sofiane Diop du côté de son club Nice il joue à gauche donc Sofiane Diop remplaçant de Sadio Mané c'est un grand oui pour presque euh, sénégalais yu quoi ñi xam a euh, Ligue 1 française euh, Bon, amoon Sofiane Diop mu mën a Sadio Mané à gauche il faut foofu Nice même si Bogat temps yi mooy joué mais quand gis ngeen coup franc mais c'est un jeu qui est capable de jouer axe numéro 10 capable de jouer à gauche capable de jouer à droite capable de jouer sur même milieu terrain à 3 donc le moment où je joue, Sofiane Diop lu barré, barré la donc moi aussi c'est un un jeu capable de jouer waroo leen ko fàtte je pense que damay jeexale par Amara Diouf xam nga Amara Diouf mooy boy bi xamante ne j'attends coupe du monde bi mu toj ko loolu laa koy ñaanal d'ailleurs sax li mu commencé seen coupe du monde bi fii euh, coupe du monde U17 moom aussi tamit mën nañu am ci moom yaakaar parce que football xale xam nga ay Emery yi ñoo ngi football Paris Saint-Germain ay Lamine Yamal ñoo ngi joué donc euh, Saka di côté de Arsenal bi mu nekkee booy la football je me rappelle de Théo Walcott bi mu amee 16 ans 17 ans la football Arsenal donc football xalé bo mané li ngay def rek machallah allah xam donc avoir nak nag lan lay def ci coupe du monde bi avoir voir aussi tamit lan lay def bu ñëwee match mais aussi c'est un jour boo xamante ne euh, mënuma ko fàtte donc mbokk li mu nekkul ay jours yu xamante ne bëggoon leen ko andil euh xawna faté Samba Diallo Samba Diallo aussi tamit c'est à noter ndax dina joggé Ukraine fële Ukraine parce que dañu waxone ne dafa bëgg changer club joggé euh, Dynamo Kiev il est temps que mu jouer gis na ay morom ñoo ngi ñëw équipe nationale du Sénégal a mom aussi tamit euh, doon na wax né le nouveau Sadio Mané c'est comme mom moy Sadio Mané moom aussi tamit joru ñu koy fàtte il est capable aussi tamit pourquoi pas de remplacer Sadio Mané si football bu Sénégal mbokk li mu ko ailier yu xamantene ne bëgg leen ko andil ci commentaire bu la neexee ngeen propose ma ñeneen ñu xamantene ne andiwu leen mais pour yéen kan mo wara nek remplaçant parfait de Sadio Mané en commentaire wax leen mako ko li mu nekkoon vidéo bi jaajëfal na leen wax leen ba benen sur seen football TV.